Samba puy, euh ASC Dias Palam yan moy sa réaction ci match wa bon sama réaction ci match bi avant tout damay féliciter Kissan ñom ñoy vainqueur té di wax espoir ni la euh ñett ma doon xaar nil victoire défaite jël na défaite bon damay dem préparer wat pour prochain match bon match bi lool rek la ci am lo xamné ki ñu gis tamit ne euh, comme ni ñuy seetaan euh, ay analyse yoo xamante def nañ ko ci match bi ci premier mi-temps bi da nga amoon jafe-jafe euh, ci milieu terrain bi parce naa loolu parce que boo xoolee sama équipe bi ba tey dajewuñu ensemble bon loolu de sujet premier match la il faut nga gis say faay pour boo ñibbee nga mën a liggéey si faay yooyu bon concentré naa match bi xam naa ne sama milieu terrain Kissane moo ma si dominé ba tax ma jël bii bu bu ma warul a jël sax bu ma xaarul woon mais dama jàpp ne rek noonu la waroon dem gis nañ gis nañ aussi ay occasion yoo xamante tamit eh, gars yi dañoo yàqamti mais mën nañ ko dugal. mais aussi damay damay nangu ba tey si état terrain bi aussi état terrain bi da ciy joué parce que ñu si bëri c'est la première fois ñu fubal si terrain bi dañuy glissé dañuy kii miinaguñu terrain bi bu doon terrain boo xam ne miin nañ ko sax après dinaa comprendre quoi moo tax ñenn yi du ma leen mën a condamné. Euh, non violence laay njëkk a woote que boo xoolee sama équipe. ni ñu fubale waxu ñok arbitre bi adverse bi aussi jotawu ñok ñom ben yoon donc jël nañ défaite jël nañ bi mais ba tay dañu concentré di football parce que loolu man dama ci liggéey baax a baax parce que fi lañ dëkk aussi violence xaju fi parce que équipe bi ñi tasal lima lañ ñëk wax moy ni suñuy mbokk lañ suñuy xarit lañ suñuy andando lañ ñen ñi ñoo bok class ñen ñi ñoo bok suñuy liggéey kon violence xaju bon amna nak nag ci si méthode lu touti parce que sport non la bon muy maa ngi condamné président jaune bi bon si li acte bi mu def tey mais arbitre yi aussi mënu ma leen condamner parce que seen règlement bi loolu leen laaj parce que dañ ma convoqué woon deux heures quarante cinq nee ma coup d'envoi quinze heures la ma respecté sama heure ñëw ñu ne président bi waa Kisan la président zone bi waa Kisan la ñu ne ma léegi euh, deux heures quarante euh, trois quinze heures quarante cinq dañuy forfait bon ma respecté xaar ba quinze heures quarante cinq ñëw arbitre di nee ma battement dix minutes ma xaaraat battement dix minutes ba mu tegaat quinze minutes muy 16h pile ki sen dogo genn mais bon arbitre bi lima wax moy ni euh convocation bi bu doon ci foy la ne ma meuna forfait mais comme ci message whatsapp la euh mënuma ko mënuma ko forfait bon bu doon sama équipe la duñ ma xaar lima wax ni lima leer bu doon sama équipe la duñ ma xaar mais mënuma nang sport amul fi la deuk président bi lu mu def nonu amul fenn mais président bi dekkul kisam non lolou lañ ma wax ah, lolou lañ ma annoncer bon te ben moy convocation boko jox ni euh, dang ko jox sur papier mais du pour euh, message WhatsApp lañ ko envoyé bon samay délégué nak amaguñ ben expérience bi dañuy doog commencer commencé ci compétition dina len nangul lolu mais convocation kenn duko jox par par message WhatsApp sur papier lay doon bon lolu metti na ma ci sama cadet bi aussi fi bon réalité village la d'accord temps au cadet bi 25 minutes doyul senior bi 35 minutes ba amul sax arrêt de jeu xolal 34 minutes la téye mom la ko arbitre bi tas amul sa arrêté gis après daanu yek arrêté yek yep amna fi bon mais lépp rek si waaw daal la fepp rek waaw euh, di félicité waat kisan bu baax a baax dina ne man damay dem euh, defaruwaat parce que compétition bi des na damay dem xool naa samay faay bu ma demee ma gën si liggéey mais man non violence lay woote man sama compétition bëgg naa ko commencé ba mu jeex te sama équipe du am